Binta Diallo eewu naa si jaama te yan naa yaaga di eewu Binta yow yaay doom bu yees Binta yow yaay caga Binta nga nekk si Europe nga torox fi ba yàlla may la jëkkër Binta 11 good years gisantewuloo sa yaay Binta nga dem Gambia nga dëkk si apartment 3 days nga enu sa bagage yi dem dëkkal sa far bi tuddaloo ko dëkk baa booy rasta bi te ñuul te ñaaw. nga dem dekal ko tay yang si bumi sey yaangi bi 3 three to four months binta yow yaay caga binta yow sa yaay dafa jur doomi caga sa yaay jur doomi njaalo kat sa yaay jur doomi sàcca kat man santa yalla suma yaay li ma jàngal mooy liggéey di dem liggey tay yaangi nelo dema bi nga génn nak so bugon sa jeker respect sa jeker gudi bobu non do duga ci moto ci biti di life, nga tok sa keri jeker nga def sa life li nga wax nga wakofa fa binta man suma ndey gina sey sa ndey ndig man su ma ndey jur doom caga yow sa ndey su ñaxoon sëy si sa këri baay du jur doom bu mel ni yow Binta yow sa yaay daf la jur ba pare rëccu ko sa yaay su xamoon ne dafaa jur doomi caga jur doomi naankati sàngara jur doomi tuxkati taay jur njaalokat si si biiram lam laa rey Binta yow yu waaye wees Binta yow saacakat nga caga nga njaalokat nga binta nga ngaidem ngay dem benen godi la nuka moy sa las domi bi nga wax ne sa jëkkër ko jur sa safari safar bobu non te deka ba côté genu lo nga wat ne ne du dega de mota nga ne man sa yaay juru domi uñu kate sutura yo naka ngay gene sutura yow lo amal nit bi be gene ko because xam nga li nga def dafa bari sa jikko ciaga yi nga def dafa bari ñi nga nuka Helsinki dafa bari binta yow yaay yes, yo yow ya delu gannaaw comme tat binta sa moromi jigen yépp a ngee di daan sen doole ana nga ya ngee nelaw ma ngi ni nak di dem liggey ma fay tax lo tax man may sey sey bi lo sey bi so don sey sey bi no mata wad nit mer binta gudi bobu do don génn sa nga tok sa weti man ak ni ma ka suma ma su dugasee dama fay suma téléphone su guddee nak duma ma nekk di wax la buguma gétteen suma jëkkër buguma lu ko soonal yow sa juru domi sey kat ndey doomi caga jur dom buy doomi caga doomi walaakaane bi wax naa la yow duma la may jaama yow su soobee yàlla kenn du la wax Paul Njaago la wala Kaburus la si biir TikTok